tey nag waa zone Diamaguène ñoo fi ñëwoon ñëw kër honorable Daba Diouf ñëw di waxtaan si def suñu bilan campagne bi passé muy campagne élection législative yi comme ni nga ko xamee ba élection yi jubsee dañoo investir ci commune Mbacké doomu Mbacké doomu Mbacké bi nekkoon Daba Diouf mais Daba Diouf aussi xaw ma beneen particularité dafa dëkk ci Diamaguène euh, niñ ko comité électoral bu mag bi defee woon dañoo diviser woon Mbacké en en sept zones yàlla dogal Daba Diouf bokk ci zone Diamaguène tey nag waa Diamaguène ak route de Kayel ànd sëñ Fallou ñoom ñoo daje tey pour def seen évaluation muy li commencé Koudé commencé Diamaguène mu nekk benn pàcc ci ci ci ci ci ci zone Mbacké yi comme que nag dafa dafa bokkoon ci ci ñun tey ñu ñëw nag def évaluation xool nan la ñuy préparer les échéances bi yi di ñëwaat mais xool aussi nan la ñuy taxawee pour jàpp gën a jàpp Diamaguène gën a préparer les autres élections mais gën a aussi xool lan mooy euh, lan mooy raison défaite bi bu defee ñu mën ci préparer ndax dañoo gëm na ñun politique boo ci demee élection doo perte soit on gagne soit on apprend on a on a gagné ci benn côté mooy sympathie bi mais on a appris aussi ci dugg nañ ci nit ñi xam nañ la où le bas blesse mais danañ ci gën a góorgóorlu gën ci gën ci gën ci gën ci taxaw léegi jotaay bi nag li ko waral nag mooy évaluation toog te aussi vraiment yombul ndax en général nit ñi bu ñu perte élection rek dañuy tasaaroo mais tey dañoo perte élection mais dañoo dajawaat pour walla ne le euh, ndam moo ñu taxoon a jug mais aussi suñu intérêt dëkk moo ñu taxoon a jug mais engagement aussi moo ñu taxoon a jug tey tey la ñuy do tey la ñuy njëkk tey la ñuy la ñuy commencé waat suñu engagement politique derrière le maire Gallo tey la ñuy commencé waat suñu engagement politique derrière la Lyon Dawa Diouf te vraiment kaddu yi mu fi yëkkati muy sant ak kaddu gërëm li nag comité bu mag bi nag bi nga xam ne mooy comité Mbacké bi dana daje ñu seen ñu def seen ñu la candidate qui a été moom dana toog wax ak waa Mbàkke mais wax wax wax wax mais li am solo ba am solo mooy waa jàmm gën ñoo toog ne war nañoo santante suñu biir def suñu évaluation def diagnostic du du mal pour mën a préparer l' avenir élection la élection aussi day am contexte te ba élection yi jeexee ci guddi gi ñoom ak la coalition Benno Bokk Yaakaar ci siège ba def nañ benn évaluation def nañ benn situation mais ñoom li ñu wax rek la ñuy sof ci li ñu waxaat mooy le peuple est souverain Euh, offre politique bi la contexte bi laaj na li mu laaj wa Mbacké aussi librement décider nañ li ñu décider loolu nag loolu nag loolu nag jàngin la suñu biir danañ toog waxtaan ci léegi élection ba mu jeexee am na loo xam ne doo ko mën a jàngat à à mi parcours mais bu ñu demee bi ci xam ne la où le bas blesse bu ko defee ñu jéem ko ñu jéem ko soytuwaat mais daal xam nañ ne ci ci wàllu investissement ci wàllu programme ci wàllu euh, candidat bu bu légitime woon ñun jàppoon nañ ne suñu candidat mu gën a légitime jàppoon nañ ne aussi suñu maire moo ëpp moo indi candidat bi gën a baax mais nag comme ñoom ñoo def di leen ñaanal aussi ci ci ci choix bi ñu def Mbacké am ci njëriñ di leen ñaan aussi gis ci boppam ndax leen rek lañ bëggoon Mbacké baax li ñu bëgg mooy Mbacké baax léegi comme que jàpp nañ ne ñoom choix bi ñu def Mbacké na ci Mbacké baax c'est-à-dire li ñu jàng ci discours Daba Diouf mooy dafa nangoo am kilifteef ci politique te kilifteef boobu boo ko amee ci politique sa avenir politique lu am solo lay doon léegi nag contexte politique ak opportunité politique dafa am léegi nag man li ma gëm man gëm ko mooy dawa ba muy dugg ci politique lenn rek moo ko ci dugaloon mooy engagement pour son terroir engagement pour sa commune te engagement bu du jeex nga nekk député ak nga bañ a nekk député nga nekk maire ak nga bañ nekk maire toujours da ngay nekk ci soxla askan wi député benn cadre rek ak benn mandat la. c'est un mandat de cinq ans léegi nag comme que nag nit nit ki da daan dem di jàppale dëkkam dëkk jàppale jàppale du du du du taxaw dañuy continuer di politique ndax politique bi ñu def ñun politique sociale la ñuy def te Daba Diouf fee nekk ci euh, conseil municipal bu Mbacké bi c'est elle qui gère la commission euh, économie solidaire tey mi ngi def ay mi ngi créé ay mi ngi mi ni ñu ko defee femme leader tey mi ngi former ay femme leader day continuer ci loolu ndax toogul ba bañ ne ko dañ lay investir en tant que député muy pour defar Mbacké en tout cas suñu engagement politique derrière le maire Gallo Ba suñu engagement politique derrière la Lyon Daba Diouf tey lay doog a en 2012 lorsque la coalition Benno Bokk Yaar gagnait gagnait mais le député qui était investi mais n'était pas connu en Mbacké sur le plan politique 2012 Baye Maguette Diakhaté koy def député mais ñun Mbacké xamuñ ko woon mais c'est parce que c'était le choix du président de la République donte Baye Maguette Diakhaté contesté wul le ki nga xam ne tey moom moo génn di wax. muy Angloma nekk chargé de mission war a liggéeyal président liggéeyalu président d'ailleurs mënoo nekk chargé de mission ñu investir te képp ku ku xam politique nu muy Sénégal c'est le président ki choisit les députés les investit tey comment yow quelqu'un qui se réclame chargé de mission à la présidence di contester le choix du président de la République mais li nga xam ne moom mooy problème bi il ne l'a pas fait lors des élections lors des élections lan la def dafa dem lakkatu ci benn liste pourtant comme demoon président qui l'a investi en 2012. C'est ce même type-là qui était derrière Galas Kalsom pour soutenir la candidature de, de, de, de, de Galas Kalsom. Mais en 2017, mon, mon député Edingo Devon euh, suppléant derrière Abdou Makendaou, est-ce qu'en 2017, la coalition a gagné Mon, lui, 2017, Abdou, euh, Abdou Makendaou, mon, mon, investi en Baké, Angloma n'est suppléant et il n'a pas gagné. Ça veut dire quoi Ça veut dire aujourd'hui, le président de la République li mu war a def na ko mooy yàgg na ànd ak président de la République et puis dafa am loo xam ne dafa am il nous parle de sept mille voire neuf conseils mais loolu c'est faux ce chiffre là n'existe pas en 2009 on n'a jamais eu sept mille voix yow comment on peut avoir sept mille voix et neuf conseils à la mairie de Mbacké alors que le maire sortant il avait trois mille quatre il avait trois mille voix le le le le maire actuel il a huit mille voix donc kooku xamul fu mu jëm man foofu li ko naqari mooy tey bañ demee bañ demee élection législative bañ demee élection locale il n'est il n'est pas investi et on a gagné largement bañ demee élection législative investir ñu ko mais moom nekkul Mbacké pendant la pendant les vingt et un jours pendant les vingt et jours on n'a pas vu son nombre à Mbacké le jour des élections il se cache derrière des écoles pour dire aux gens de voter contre Benno Bokk Yakaar il appartient maintenant à la présidence il appartient maintenant au président de la République de choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ce de personne doit être dénoncée parce que ñoom bokk nañ ci cause défaite bi moom moo am